ravi aujourd'hui de venir euh, co-présider avec euh, mon collègue du développement industriel et l'ambassadeur euh, du Royaume de Belgique au Sénégal le lancement de ce lab qui va permettre la structuration d'un projet très important pour le Sénégal. Il s'agit de l'Agropole Centre. Comme vous le savez, dans le programme Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent, le président de la République avait décidé de mettre en place des agropoles au nord, au sud et au centre du Sénégal afin de faciliter la transformation de nos produits agricoles au niveau local. Et c'est aujourd'hui une réalité puisque euh, dans le sud du Sénégal, avec euh, le travail du BOSS et du ministère du Développement industriel et de tous les acteurs euh, publics locaux comme privés, nous avons pu structurer en six mois un grand projet afin de permettre à l'État du Sénégal de mobiliser des financements de la BAD et de la Banque euh, islamique de développement pour à peu près 57 milliards. Aujourd'hui, cet exercice est repris pour euh, l'Agropole Centre qui concerne les régions de Kafrine, de Djurbel, de Kaolak et de Fatim. Cela va permettre à plus de 14 500 de nos compatriotes d'avoir un emploi direct, mais aussi permettre aux producteurs locaux, à la, aux petites exploitations familiales de trouver un accès au marché avec euh, les industries qui doivent s'installer euh, dans un partenariat avec l'État du Sénégal. Donc, c'est la poursuite du plan Sénégal émergent avec euh, le PAP 2 ajusté et accéléré. Et dans ce cadre-là, l'agriculture demeure aussi un élément de transformation structurelle de notre économie fi dikk tey ànd ak euh, ministre du développement industriel Moustapha Diop ànd tamit ak ki nga xam ne mooy ambassadeur u Belgique nga xam ne ñoom seen structure bi nga xam ne mooy ENABEL seen agence de coopération dañu taxawu Sénégal ci li nga xam ne mooy structuration projet plan Sénégal émergent euh, président de la République li nga xam ne moo doon yéeneem ci PSE mooy fexe ba baykat yi bu ñu liggéeyee ba noppi ñu bañ ci jël seen gerte moo xam. Euh, xorom si nga xam ne moom la ñuy am gerte gi moo xam mboq mi jël di ko yóbbu bitim réew ngir di ko fa jaayee njëg boo xam ne mën na am dëppoowul ak li nga xam ne mën nañ cee am looloo tax mu xalaat projet yu am solo bokk na ci agropole mu ne da ciy defar ñeent defar benn west defar sant ci digg bi defar bët gànnaar defar tamit euh, ci Ziguinchor ci fi nga xam ne mooy dans le sud du Sénégal foo xam ne danañ fa def industrie ci war tali yee ca war indi courant andi ndox ngir képp koo xam ne rek yaa ngi bay mën a fekk ñoo xam ne danañ ko soxla ci senegal ñu mën ko jël soppi ko bu fekkee euh, ay mango la euh, lu mel ni gerte ñu mën ko nar fa mu ne euh, soppi ko ba nga xamante ne benn dërëm duñ ko jéegaani wala di ko yóbbu bitim réew lépp fii lañ ko defaree mu doon njëriñu sénégalais yi nee nañ ci agropol santé biir rek fukki junni ak ñeent. ci ay xëy mën nañ ko ci yaakaar leneen li tamit di borom ñi nga xam ne ñi ngi bay am ay toolu dër ñi nga xam ne yor seeni tool li ñuy bay di ko mën a jaay fa ñu ne ñu koy soppi ci réew mi mu doon njëriñu réew mi doon njëriñu baykat yi doon njëriñu industrie bi doon njëriñu suñu koom-koom loolu moo tax a jóg li nga xam ne mooy agropole centre euh, ministère du développement industriel def ci liggéey bu rafet BOS PSE ak euh, directeur El Hadj Ousseynou Kane def ci liguey bu am solo ba nga xamné tay projet yi dematuñ bitim réew diko fi étudier wala di wut ay nit bitim réew fi lañ koy defaree ak doomu Sénégal euh, Enabel tamit di suñu ay partenaire wa Belgique royaume de Belgique ambassadeur bi ne fi ak ñi nga xamné ñoy ñooy ONU di jàppale ñu ci ba nga xamante lolu dañ danañ ko mëna def ci lu mu gën a ba mëna am financement yi wax leen né Agropole Sud bi ñu duggee ci liggéey bi ci juróom benn weer fexe nañ ba am financement yu am solo lu ëpp juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards ci loo xamante ne buñ ko daan def dina jël ñetti at donc loolu muy avancé bu mag ñu sant ci yàlla bu baax te mu doon ndamal président de la république ndax liggéey bi ni mu ko tàmbalee ba pare dénk ko ay doomu Sénégal ci anam yu gën a rafet maa ngi leen di gërëm leen sant jërëjëf